président moom ku ne xam na ne moom président Macky Sall bi mu faloo ak léegi coow rek moo moo am ci réew mi ndax li ko waral mooy euh, yàlla dogal na bi muy bëgg réew mi ñëpp dañ ko dañ ko dañ dañoo amoon ci moom yaakaar ba fal ko comme dañoo amoon ci moom yaakaar ba fal ko ndax lim diggee woon ak programme bi mu tegoon ngir bu jotee soppi réew mi euh, yàlla dogal bi mu ko jotee ku ne xam ne dafa jot réew mi rek problème yi commencé ñu commencé jàpp nit ñi jàpp Karim Wade bref jàpp xalifa Sall mu jur coow mu continuer waxoon na yit ne premier mandat lay def bi loolu jàllee defut premier mandat gis nga ko 2015 mu def mu def référendum wax ne day def deuxième mandat fexe ban def euh, oui ak non boo xam ne Touba moom teel naa wax ne boobu d'accorduma ndax li xew tey jii bokk na ci ma ma dugal ko ci bala ma koo fàtte li xew vote yi ñu vote ngir wane ne ku woote rek. ngir euh, manifestation manifestation terroriste la ñu ne loolu amoon na bu yàgg ci élection yi lañ ko wii ak noo lañ ko référendum ba lañ ko lañ ko dugaloon ndax li tax ñu dugal ko mooy du lii dong lépp loo xam ne rek lu doy waar la euh, ci loo xam ne méngoowut ak réew mi dugal nañ ko ci référendum bi kon waatu Touba moom teeloon nañoo bañ ca lañ bañoon moo commencé waat nii ndax gis nga ko nee nañ ko dajale ko dajale nit ñi terroriste la bu loolu jàllee moom ci boppam moom Macky Sall ci boppam. bi mu tëjee xalifa Sall ne benn mandat lay def defut benn mandat def ñaari mandat wi ak non bett Sénégalais yëpp ku ne xam na ne mi ngi jëm ci troisième mandat ci lañ ci lañ jëm ca ca ñoo ngi koy ñoo ngi koy xaar problème yi am mu jàpp Karim jàpp Khalifa def euh, wi ak non daal di daal di jàll def deuxième mandat coow li continuer deuxième mandat gis nga élection maire yi nga wax nii 2019 lañ ko waroon a def mu yokk ci ñaari at ca loolu teguut fenn dafa dafa war a respecter sàtt réew mi. kilifa buñ la déggee dénkee surtout président liñ la dénk da nga koo war a sàmm waaye waroo ko yàq ku ne xam na ne 2019 la ñu waroon def élection maire yi mu bàyyi ñaari at di ko doog a def jekki-jekki rek ne nañ ko def janvier 2022 loolu mooy waaj na ca loolu it euh, ñoo ngi koy xaar ci législative yi ñoo ngi koy xaar ci élection maire yi di ko xaar ci législative yi ngir ñu man koo baatar Sénégal yëpp jëli seen i man koo duma duma yu metti mu dem tëri ngir xelam du mën a dem ci deux mille dix neuf euh, deux mille vingt trois waaye bu gagné élection maire yi ca mënu koo gagné. gañee yee gañee élection législative yi Sénégalais yi maa ngi leen di wax ne da ngeen wiccax seen loxo ndax dina wax pris pris dina wax euh, troisième mandat ca loolu sax moom kenn du ko ci xaar ndax ku ne xam na ne Sénégalais yi dañ cee pare ndax la mu waxoon lépp defu ko bu loolu jàllee kon coow yi am gis nga ko euh, Sonko jaar fi. muy coow loo xam ne gis nga réew mi ni li ci xew ni nit ñi yàqule ak bruit bi mu am loolu it ma xam ma xamal leen le tooñ nañ koo xam ne kat man sax euh, tooñ laa ko mën a tuddee ndax ku doon liggéey la ñu dàq ko yàlla dogal sénégalais yi fal ko mu doon député muy Sonko lii xew nag moom du ma ci sori ndax mbirum massage ak ñàkk a massage moom loolu euh, du ci sori loolu moom dama cee munta a sori ci ci ci ci doomi soxna ndax amaluma njariñ waaye li fi jot a jaar daal muy ñu dàq ko ñu falaat ko mu doon député loolu waroon naa tax mu xam boppam ba lii xañ na bu dee am na mu bañ ko mu waroon a bañ a demee noonu ndax mënoon naa demee neneen surtout ku bëgg am réew moom ci boppam moom Macky Sall ci boppam e fa nga xam ne moom la wax ne fa la dëkk fa la njëkk a dem ñu yuuxu ko muy Fatick ba mu fa eggee di xuloog sénégalais ci wàllum élec maanaam sénégalais yi dañuy nekk ci internet bi di ma xasak yooyu amul njariñ wala di wax wax du ñaaw di téesanteeg sénégalais yow ñu fal la ngay téesanteeg sénégalais yi di wax sax bay wax ay internet yu sénégalais yi tëdd seen i bindi kër di xool actualité bi di leen saboté ci internet yi ñu xool te pourtant corriger la moo tax ñu koy xool ak gis lu jaarut yoon ñu wax la ko dañoo war a defaraat internet bi defaraat site internet yi defaraat communication bi ba ñëpp dellu ci original bi mais waruñu leen a ñàkk a gis nga fi bi mu jugee Fatick la fa xew ñu yuuxoo ko mu dem Fuuta foofa moom fa yaakaar ne moo ko moom gis ngeen Fuuta tàmpi jug ak ñeneen ak ñeneen ñu yuuxoo ko danoon natt boppam waaye fi mu jot dem bépp ci tournée économie bi day wanee ne dafa laj ca Sénégal yi dañ koo mere bu loolu jàllee gis nga ko bi mu demee Podor bi muy dem Fuuta Podor la jaar ñëpp xam nañ ne Ndakaaru Njaay stade bee falak biis yi doon dem nekk lu mat ay cinquantaine de bis nekk fa ngir ñu war a leen a yóbbu Podor nga xam ne même bu dee dem fenn dañuy kuli commune yooya wala ñuy jëlee sax région ko région ngir ña fa nekk di tappalekat wala ñu doon ñoo xam ne ay ministre lañ wala ay directeur ñu jox leen liggéey boo xam ne liggéeyun dañuy wane ne rek ay jàmbaar lañ jënd nit ñi ndax ñoo leen xiifal ay mille yëpp leen ciy kaar région bu mu dem ca gox ya gox ya commune ya ak département yi la la nit ñi jugee ca ñooñu manqué dépassé tax ñuy dem ndax xeebuñu 2000 francs yéen leen di jox ndax ñoo leen xiifal waaye may yee sénégalais yi ci ne nit bu la xiifloo dalaa war a jox nga lekk ci yoon ak ak ak ak yoon ak jàmm nga lekk ak jàmm ci lekkin woo xam ne lekkin wu rafet la lekkin yi mooy mu fexe ba ngay ba nga am liggéey fexe ba fi réew mi toll ci jafe-jafe deñ nit ñi mën a liggéey yor seen i kër moo gën ñu leen di xiifal di leen dajale loolu mooy dañuy natt seen bopp waaye nit ñi génn dañ leen a jënd ñu ànd ak ñoom ci élection maire yi duñ leen votel duñ leen votel euh, législative yi nga xam ne kon dafa échec ci tournée économique bi mu doon def loolu moom ku ne xam ko ku ne xam na ko élection mairie yi ma wax leen ne ñoom ci boppam waa APR ñoo ngi ndakaar ak fépp di yi ay mouvement yoo xam ne dañuy wane ne ay GIE la ñuy def dem ci gox yi yebal ay nit ñuy kidnappé nit ñi ndànk-ndànk ku amut pièce ñu génneel la ko jox la junni sa numéro carte d'identité ku ne xam na ne yim def ay votant yim def noo voté mu ëpp fopp erreur boobu ginnaaw bu ñu ci defee milliards yu dul jeex yàq ko mooy carte d'identité xam ne yu bon yi mën naa dem sax ci say nga xam ne ginnaaw bu ñu ci defee milliards yu toll noonu kenn ku sénégalais boo yi ci ëpp non votant defal te ñoo defoon seen i pexe ngir mënoon a gagné 2019 bi loolu jàllee gis nga ko fi ni ñoo ngi koy defaat ngir ku amatu ku amoon non votant ñoom waa APR ci boppam ñu génn la sa carte fay la junni ngir nga voté leen nga xam ne ñun ñun leer na ne opposant lañ oh, duñ voté waaye loolu sénégalais yi yéen mm, sénégalais yi surtout jeunes yi na leen jaral ngeen xooli seen carte d'identité yi ba mën a voté duuma ko ci meer yi. Euh, euh, nu ñu koy waxeeti législatif yi bu ñëwee ngeen duma ko ngir xelam du dem ci euh, troisième mandat loolu daal mooy bref comme li nga wax ci actualité réew jàllee Touba gii suru ñoo ngi sàkku nga waxal ñu sëriñ bi Touba yaatu na yaatuwaay goo xam ne dëkk bu ñuy dem ba ne mooy deuxième capitale ci Sénégal li fiy jóge it même première capitale ba di dakaar booy xool ñoom ñaar li ñuy sëri bi nga ne dakaar sax mi capital bi ëppalu lu muy dugalu kees euh, lu muy dugal li Touba dugal ci keesu réew mi dakaar daanaka ëppale wu ko ku ne xam ne màggal Touba rek 500 et da koy dugal at mu ne. nga xam ne société yëpp a ciy gis seen bopp ñëpp a ciy gis seen bopp état gis ci boppam yëpp war a fay muy droit yi ko war a fay impôt yëpp dañ ko ciy fay kon loolu ñoo ngi koy sàkk nga Cheikh bas nga waxtaan ak président ndax. tappale xam ne waa Touba ànduñu moom moo tax loolu sa waruñ ci waaye Touba dañ ko war a dañ ko war a découper tas ko doonte ñeenti gox lañu def ko mu am ay maire es ak ouest hôtel euh, maire de ville bii nekk fi doon maire bu mag bi. assainissement bi it ku ne xam na ne président màggal tuubaa gii jàll la waxoon ne balaa màggal gii dil si ñu defar assainissement bi defaruñ ko ñoo ngi sant morit yi it jaarale ko ci Touba ca kanam gis nga liñ ci daj daaw waaye nawet bii di ñëw ren ku ne xam na ne day ci biir màggal gi lay nekk ndax daaw rek ci cat la nekkoon ren jii dina ci xaw a dugg tuubaa dimbaliwuñ ci assainissement état defu fi ay ay yoon ilaa Touba bii daanaka taxu koo jug Touba nañ waxtaan fuutaa ko tax a jug mu jaar Touba waaye daanaka booy xool lam waa Fuuta la ëppal njariñ ci respect ca Sénégal yi pour war nañoo xam ne moom président ci boppam gis nga fi mu jot a jaar yëpp ci élection ne ne ne day def tournée économique xoolal bawal ni mu ko jegee ak bawal li mu représenté ci réew mi ñëw fi ndax amut lu mu fi def waxuma la Touba boo waxee ñuy euh, maanaam lay Touba ne def nañ fa hôpital boo xam ne niveau 3 la xaw ma niveau de ca pareegut ca loolu rek la fi mas a def assainissement bi saa moom rek lañu mën a dimbalee ca mosu ko fee def. courant bi yokku ci dara chaque année ñu defi tappale ne yokku nañ ay poto ci ñu ko man def naa enquête bi. loolu lépp am defut loolu kon état ci boppam moom si jëmi bopp nag nañu dimbali occupé maam ñu def dëkk bi découpage mu defaral ñu suñu assainissement. ngir nañ ko bëggee ñu amee ko noonu muy Touba nit ñi nekk ci assainissement bu baax ndax loolu état moom moo ko war a def ndax Touba ngi dugal lu toll noonu ci réew mi kon nañ ñu dimbali nag ginnaaw ñun duñ laaj murid li ci ëpp ñoo koy defal seen bopp lépp sax ñoo koy defal seen bopp mais li nga xam ne nag état koy def moom cam doon waru garam muy assainissement ak ay yoon ak ay lamp ak fajukaay nañu ko defal ca def ko ci département bi mu ngi nii ñëw euh, région de Diourbel ndax amut defu fi dara benn ministère lañ am ca foo mën a dem Touba li ko fi woteel kenn xamut nu mu toll li ko woteel département Mbacké rek mu ëpp li ko woteel Matam gépp ca maatam ku ne xam na la mu fa am ci ministre li mu fa am ci directeur la mu fa def doon desax defu fa dara ndax des raison yëpp defu fa lu am njariñ waaye am na ñu mën a tudd na def na fa dara Fuuta ci la bokk li wote département Touba dong département Mbacké dong nga ëpp la nekk Fuuta gépp région région Fuuta bépp ca gis nga ko rawatina nag Touba rawatina nag région de région de Diourbel région de Diourbel booy xool li ñi ko voteel kenn xamul nu mu toll mii defu fi dara nit ñi amuñu ay yoon amuñu fajukaay amuñu dara Touba nag na ko leer ne ki fi nekk ki ko fi nekkal wala mu wax ne moo ko fi nekkal nga xam ne benn conseil lañu lañu la ñu fal la la fi def ca conseil sax mën naa ko ñàkk tuddee conseil du dara muy Cheikh du Mbacké Gaynde ma nga xam ne ñun keroog bi nga xamee ne président lañ àndal di ko liggéeyal ngir mu mën a dimbali suñuy gox ci principe yooyu yëpp la ànde woon ak moom ndax seet si na ma gisee na ñaari yoon moom président ñëw nan du la ñëw Touba ca yooyu yëpp maa ko recevoir yóbbu ko ci samay kilifa loolu lépp accord yi ma àndoon ak moom mooy ngir yóbbul taalibe yi yitte woon ndax ak ay fajukaay man looloo taxoon ma ànd ak ñoom man ci social lay dund ma bokki taalibe yëpp ma bokkal sëriñ bi yàlla dogal ñu ci bëri bëri ma fexe woon ñu gañeel Macky Sall ngir ne leen bu gañee sama xarit la ñëw na du la seet si ma bu gañee dinañ leen defal ay yoon ak ay fajukaay loolu lépp amul defuñu ko boobu ba léegi damay bañ na nag ngeen yaakaar ne lañ ma waxoon def nañ ko ca defuñu la defuñu ko ca yéen a leen voteeloon bokk ngeen ci ñi leen voteel kon maa ngi leen di wax ne élection mairie yii bu leen woteel président Macky Sall bu leen ko voteel législative yi bu leen ko voteel comme Sénégalais yëpp ni ni ma waxee ne nañ ko defee noonu di ko sàkku ci ñoom ngir ñu soppi suñu réew kon bu mu am moom moom moom loolu ci moom élection yi bu leen ko voteel moom président maa ngi koy wax dëkk bi nga xam ne nag falaa sosoo muy ndula gi nga xam ne maa ko gagné 2019 ndax Serigne Fallou Mbacké di sëtub Serigne Sam Ndoulo joxoon na ma ambulance ma yóbbu ko fa ngir jëmmi Serigne Sam waaye ngir ñu ñu ñu ñu falaat président nga xam ne loolu la ci duggee woon muy rafet waaye Serigne Sam la ci jiitaloon loolu ñu koy si sant keroog bi ma demee wax naa ñu ko voteel nañ ko kii yi may defi tournée it maa joxe ndigal ñu voté leen ko ngir mën a am intérêt yu ma leen yóbbul ginnaaw amul nag buñ ko voteel maa ngi koy wax waa Ndula di ko wax waa waa waa Ndëtt si di ko wax waa Sawkaar yi di ko wax waa Mbanna di ko wax waa Melo di ko wax waa waa waa waa Sawkaar yi di ko wax waa waa waa Kër Góora di ko wax waa waa Ndëtt si waa Ndëtt si waa Ndëtt si loolu mooy côté euh, goxum Ndula di commune Ndula boo duggee ca Bawal ca kaw kaw côté Lambaay bi maa ngi leen koy wax waa Mbadiane boo duggee ci côté Xombal bi région de Thiès koy wax waa Gelor di ko wax waa Thiène loolu lépp ay commune la di ko wax waa Thiène Sërëx di waa Gaat di ko wax waa Ndimbu di ko wax Bawol gépp di ko wax sénégalais yëpp nañ leen ñàkk a ndax li leen waxoon defuñu ko ñu soppi réew mi loolu laa gis. lu am loolu laa gis ne mooy jëriñ réew mi ca it moo moo baax ci réew mi. ko war a sante mooy lam ñu waxoon mu def ko ba dolli ñu waaye lam ñu waxoon defu ci dara def ci lu néew ñu koy sant loola la waral buy dem ay ay garde corps topp ko ñu jox ko suñ palais bii jëndal ko avion boo xam ne barki démboo Njaay ku ne milliards la ci def ca waroon a def lu gën a farata loolu ku ne xam na ne manqué nañ ay hôpital manqué ay poste de santé yu baax sax ak case de santé amuñu ko dara amuñu ko ci wàllum fajukaay ci région yi yëpp nga jël 50 milliards di ko def ci da ngaa war a am avion pare da ngaa war a tukki ca ku ne xam na ne gis nga buur euh, Maroc bi Royal Air Maroc lay tukkee day def fi mu ci am présidentiel bi mu ci am passage bi lay tukkee. bu waree dem nag ndax li muy tukki bëriwut moo ko war a dal moom mi toog tël réew mi waaye fu mu toll di dem kee bu waree dem dañuy jël air première classe diggante bi nga xam ne fa la war a dem sensé siis yi denc ci ginnaaw ci avion bi defar fi mu war a ne moom salon bi bu tukkee ñu wàcce waat ko démonté yooyu monté waat waa passager yi muy dem loolu ñi ko gën a développé gis nga ko Royal Air Maroc moo président Maroc euh, buuru Maroc bi loolu lay def gis nga ko Kagame li ma lay wax ne dafa bëgg nguur xoolal li mu yor ciy Ford xoolal li mu yor ciy Ford lim yor ci oto yoo xam ne benn bu ne 100 millions la lu mat 20 oto nga xam ne man nga ne 20 oto yoo xam ne benn bu ne 100 lay jar da koy ëpp sax. lay àndal. fu mën a dem rek loolu di lakke essence oto yoo xam ne fi ne presque presque 200000 bu bu président tukki dañ ko ciy def. nga ànd ak oto yoo xam ne daanaka ay caaxaani kese kese kese nga ànd ñoom jënd avion bu cher jënd oto yoo xam ne daanaka président France benn oto koy topp moom mi bu demee France. fu mu mën a dem oto bi ñu koy jox lay àndal ak benn garde ak oto euh, police municipal ba mu ne municipal ba mu loolu la lool moo xew fépp gis nga Paul Kagame mi am fulla moom di defar am réewam bi mu liggéeyee ba war a inaugurer en tant que ñu dé ñu dénk ko muy def la mu war a def moom ci boppam dane duma jël cortège man doo dong may ànd ak ñu doon liggéey liggéey bi dem wëri chantier yi waaye cortège bi ñuy def yàq la xaj na ci réew mi loolu Paul Kagame la moom la def waaye moom saa su déparé lakk milliards oto yi milliards yi milliards la yor kon moom moo gën a xañ Sénégalais yi liggéey ndax xaalis booba ak loolu muy corson am na fu mu xajoon waaye moom ci jëmmi boppam xamut loolu nguura ko fi bàyyi ginnaaw nguur ko fi bàyyi nag na Sénégalais yëpp xam ne nguur ko fi bàyyi ñu jéem koo folli xool keneen koo xam ne man nañ koo fal buñ ko may daal 23e buñ ko may daal incha allah 3e ndax 23 juin bii ñuy wax barki mu jàll. ñu naan euh, bi ñuy xeex bokk na ci 3e moom fala la toogoon fekkee na ko man ma fekkee ko maa ngi moom ma bokk fu mu toogoon moom président 23 juin bi amoon maa nga toog ci rond point bi. ñu toog ci monument bi man ak moom ak dansoxo dem si yàlla si Abdoulaye Bathily Moustapha Niass Cheikh Bamba Dièye bi muy takk boppam ñoo ngi toog nii ma dend ak ma dend moom mii di président tey moom Macky Sall ak ñoom Moustapha Niass ak dansoxo ñoom ñëpp toog maa ngi fàttali ko Aïssata Sall Sall mii ñu def ministre des affaires mi ngi toog waaye gis euh, yàgg nañ fa ba moom sax daa sonn ndax bii fi jeexee bi muy dem maa ngi ko gis mu taxaw ci balcon di tàllal loxo loolu fàttewuma ko ñu daj fa ay coono yoo xam ne bañoon troisième mandat am moo taxoon kon nag bu bëggee troisième mandat loola du sopp du du sotti loolu moom na ko xam dinañ ci ànd ak moom xeex ci bu baax a baax a baax a baax ne bu bëggee troisième mandat du sotti élection mairie yi fépp fu mu fu fu ab ab ku bokk ci moom gañe woon Benno Bokk Yaakaar sax laay wax damaa jëlee APR nan leen fa jëlee ndax man nga ko commencé ci maa ngi dégg ñoo xam ne seen loxo seetul ñu ne dañuy bokk ci élection yi dañ koy xëccoo bu ko sali ku ne xam na ne APR la bokk ñu jàpp ko falaa laa gën dëri ci faux billet mu tëdd lu tuuti mafia bi génn ko. yaa ngi dégg ku ne xam na ne xalifa euh, ku ne xam na ne euh, man fay Faye suur fay milliards yi ko joxoon ngir mu séddale ko ci corona bi ceeb beeg pasta beeg diw gi amut suivi léerut ak yeneen ak yeneen yu ñu koy jiiñ bërki mu lar ab goroom génn muy Adama Faye xawma ko mais ku ma neex la ndax li mu nekk ci biir rek taxu koo wax dëgg ma dégg muy wax ni maanaam muy wax dëgg ca waa APR kenn sañu cee gis lu dul dëgg wax ko président ndax dan naan da ngay nekk ci parti bi euh, li la neex nga nga boole koog li la naqari loolu ay kilifa ay kilifaa ma ko wax li la boole li la neex nga boole koog li la naqari muñ loolu dafa war a jeex ñuy wax président dëgg réew mi soppi sénégalais yi bu bu politique yi bu politiciens yi sonn ci duñu caaxaane nañ bañ a sonn ci fexe nun leen soppee ku bon ñu yóbbu ba am ku baax bañ xam ne soppi ko nañ ngir ku ñëw la muy wax mu gëm ko buñ ko falee mu respecté ko ñu ànd ak moom ab ay patriotes yu mel ne ku Paul Kagame ak ñi fi jaar ñoo xam ne ay bañkat lañ woon jariñ Afrique wuteeg ñi nga xam ne ñoo fi jaaroon doon ñoo xam ne kat Afrique euh, gëmuñu Afrique topp tubaab yi def leen day ak bàyyi ba tey mu des fi ci suñ président yi ñooña moom amuñu njariñ Afrique amaluñu njariñ seeni réew nan leen folli te ñuñ gëm ne ay patriotes lañ bëgg a defar réew mi di ay patriotes yoo xam ne ay président yi patriotes lañ ñu xeex booloo Afrique dajale président yooya bañ am liñ bëgg ndax Afrique la lépp ne lépp lu nekkoon Europe ak Asie fu mën a doon li fi des ci lépp ci matière première lépp Afrique la ne ca ñu ngi koy xëccoo topp ñu lool mel ne koo xam ne tey jii waroo développé sa bopp gëm sa bopp gëm say jeune gëm sa bopp gëm fi nga toll. loolu li fekk sénégalais yeewu yeewuwuñ ci africains yi yeewu ci Afrique du dem fenn Sénégal du dem fenn wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu.